waaw maa lay delloo ziar. ci loolu nag am nga am nga jàmm. sant naa bu baax sant naa bu baax. tey géej waay daa génn de ne ci ginnaaw Marley. waaw dafa leer dafa leer Marley moo moo mel noonu moo wane loolu ci biir géej waay moo tax bu xewee rek waa géej waay yëpp jóg. waaw di ko ñaanal yàlla defal ko ndam lu seddu gi. booy bool lu ngeen koy wax. waaw booy bool ne ko lu mu mënta waaj rek na ko waaj. te xam ne ci kattanu yàlla booy bi dina dox ci kawam dina ko daan ci incha allah waaw loolu lañ koy digal ci kattanu yàlla jërëjëf. Kabar. Gabar bëgg naa la. siyaar naa la Babacar. maa am nga jàmm. maa ngi sant yàlla bu baax. daa mel ni yaa ngi sa ginnaaw rakk de ngir dimanche. waaw maa ngi sama ginnaaw rakk ngir dimanche te suñu xol xel dal na ci làmb ji. waaw ndax ñu ngi koy xaar fépp bu bëggee ñu ñu ñu daan ko ci deux secondes bu bëggee ñu daan ko ci une minute bu bëggee ñu daan ko ci cinq minutes bu bëggee ñu daan ko ci sax ci vingt minutes. a wax li waaw lu mu bëgg rek dañ ko ci def. bu soobee yàlla lu mu bëgg rek ñu fekk ci ñun pare nañ fépp waaw. waaw woyu ma. waaw man li ma lay njëkk a lan la la Lamine defoon ba naan ko da ngaa soxor xale booy bu soxor. non Lamine dafa garaaw il a dansé ndax booy boobu dégg lu mu waxoon xanaa. yox la wax booy boobu. non booy boobu mën ay waxam sax bëgguma koy wax ah. <laughs> ndax booy boobu day commencé jéng la booy Lamine. Lamine non xam naa ko je connais booy bi xam naa ko je connais très bien waaw wuy ma dafa am lu ñu indi fii tey. lu rak marle moo xew la doomu géeja way di naanaan nag di champion. Ah. wooy di champion yaa wax lii maa ko wax yow xam nga. booy ngay bëreel oh arrête nga ma wax booy booy. Oh, arrête arrête oh, lu tax ma non non bu ma wax Babacar non arrête bu ma wax waxi booy. non non man Marley moo fi indi nga wax booy booy. waaw baax na Marley moo fi indi man. Marley Baol gi ñun ay doomu Guédiawaye lan dañoo gëm fi ñu dëkk ñu. Boy Baol ngay bëreel waaw d'accord Boy Baol ba ci lan. ba ci lan Marley champion la. ko sunu rakk sunu xarit la yàlla ko wa suturaal. waaw ok waaw. waa Guédiawaye ngi ni waa marché bu bees. déet Balla Gaye nee na waa Balla de moom ku baax la. ak liiru. daf maa yéene ñaareel ak Jeyse. te géejewaay lañ la jigéen yaa ngi. ngeen jàmm ah. déet da wax yow mi nag yaay wax. kaay nag kaay. Yacine kaay kaay. kaay Yacine. eh Yacine eh. yaa ngi fi. yaa ngi am jàmm. yaa ngi tax a taxaw fii. maa la doo. booy bool lay bëreel de. mu ma. bool ngeen di bëreel dimanche. moom la ñuy bëreel waaw. nu ngeen di préparé woo. gisal ñu ngi nii gis nga nu préparé woo bëgg koo rek daan. fii mooy fan ci géejawaay. fii mooy géejawaay waa Kanaan Nimsaat. waa Kanaan Nimsaat. waaw. bëgg waa mbër moom yàgg na du ñu bëggal ku ne xam na loolu ku ne xam na ñun géejawaay ñun Marley lan am te moom la ñuy tiitoroo ah. ba ñuy topp Marley yaakaar naa ne du léegi. te yaakaar naa ni maa la fu ñu woo ci àddina ñun dañuy dem. stade bi yéen a koy stade bi ku fa yëpp supporter dimanche. barke Serigne Touba Mbacke. wax baaxul dara du xew. bu boobaa di ngeen xamante ne maar la deux rek ci boppam takku ba dëgër ànd ak koobaam ñun ragaluñ loolu barke Serigne Touba tàppatuñ loolu ñun maar la ñuy bëggee ba yaa ma gën a xam. Anta Ndiaye. barke Serigne ñoo nii xale maar la deux ragaluñ loolu barke yonente bi. yow e guy gi ak liiroog kiloot ba waaye pàccab liiru bi waaye daala njaay ana liiroog pàcc ba xool pàccab liiru bi ci góos bi e waay waaw waaw liiru pàcc la maye tey yaa tey liiru defal lu la neex waa guy gi moom xoolal liiru acal liiru waaw waay galaay taala galaaya ngi ci loolu na naka naka réew réew maa ngi nii mar la muy fecc dimanche mar la lu mel loo ay ci luur loo ay ci luur laa ilaha loo ay ci luur xam nga ko ah daal rek daal rek maa dina yomb ba la yomb baatu ange billahi mina seytaani rajim bisimilahi rahmaani rahim di sant suñu ñaari waajur di sant ñi fi nekk ñëpp di gërëm ñi fi teew ñëpp xam nga di wax laa xawla wala quwwata illa billah alil azim waaw di nuyu ñëpp di bëggee ñëpp di siyaar ñëpp daal hmm. tey ñu ñëw géejawaay fekk la fii géejawaay gi yëpp génn rawatina sa mbokku loolu ban si yëg actuellement nii waaw loolu li ma si yëg mooy balaa dara ma leen di sant di leen deretu géejawaay mooy daw suñu yaram ñun amuñu lu dul géejawaay moo tax géejawaay la ñuy nooyee géejawaay la ñuy tiitaroo ñu ñëpp benn bopp la kenn ku xew xewle sama morom day def teew moo tax tey bisu mel ko quoi. nga jëm si combat dimanche yaag yaag Boy Baol ngeen ngeen di ñaari mbër yoo xam ne seen saison daaw bi ngeen koy jeexal wala boog benn combat la ku nekk bëri ku nekk ñàkk maanaam ngeen am defet tey ngeen jëm ci combat boo xam ne yéen ñaar combat bu méttee métti lay doon combat boobu Marley nu ngi koy dund actuellement. waaw combat bi ni ma koy dundee mooy ànd naa ak samay mbokku liggéey comme ni ngeen ko waxee man bi passé damaa bëre vingt cinq minutes moom ay une lañ ko daanee xaw ma trois kon man ak moom yemuñu benn jour moo ñu boole muy le 16 ma jàpp ko duma ko daan ko indi ndam li géej waaye du ma taxaw yéen ñaa yem ngeen su ko déggee ça veut dire que yow dàq bëre wala da nga ëpp doole wala da nga ëpp fit dama ko dàq bëre dama ko ëpp doole dama ko gën a capable dama ko ëpp fit lépp loo xamante ne mi ngi si billaahi parce que moom comme bëre bu yàgg boobu lay wax seetlu nañ ci ay combat yu bëri des fois ko combat faral na yàgg te bu yàggee du neex ci adversaire yi mu koy faral di seqal de. waaw adversaire yooyu ak man duñu benn mooy li ma ko waxoon rek dama ne ko bu jàppee ne ñi mu doon bëreel ak man benn lan mi ngi nax boppam parce que maa ko ëpp ay qualité fuuf maa ko dàq bëre mën naa di nelaw sax di ko wax nii ngay def ak nii kon man ak moom duñu benn. billaahi maa ko dàq bëre. mu naa technicien bu mag mu dem ku jëli ko muy Zarlo mu ne ci ginnaaw loolu yow gis nga ko. Zarlo bu ñëwee si bunt ba layam Omar Mooma mi moo ko dàq bëre fuuf. moo dàq bëre Zarlo ba moom a doon champion xaj na nag waaw yàlla suñu borom ak dogalam ko waa. actuellement billaahi aw lu may moytu si moom gisuma ko lu may moytu si moom. Hmm. leen daal laa bëgg arbitre bu ne prix ma ba teggi loxo ma dox si kawam du ma ko daan ko. combat mën gaaw. day gaaw si kàttanu yàlla cinq minutes du ko am. cinq minutes cinq minutes. ci si xeex si bëre si fula si fayda si fit si lépp dama ko ko ëppalee te bu arbitre sifflé ma wane ko. côté mobilisation foo moom mooy li ma wax rek. géej waay ñoo toll si man foo xamante ne nii xam nga man mënu ma ko wax waa. bu dul géejawaay sax dafa am ñoo xamante ni day jóge feneen ak feneen ñëw di ma supporter yaa ngi dégg yàlla suñu borom bi moo dogal loolu si man ak ñeneen ak ñeneen ñoo xamante ne ñu ngi fi xaj na tamit suñu borom ak kenn ku nekk lim lay cëralee yaa ngi dégg mais làmb ji moom respecté nañ ko fonk nañ ko bu baax a baax a baax di woo ñi nga xamante ne nii xam nga saa su ne fu ma taxaw ñu taxaw si ku si mel ni Serigne Diouf li naan garabu guy xam nga bu meññee reen yi moo tax kooku bi dara dul dara moom la mënuma dara barki Seydina Mouhamed may fayeku 40 mille lépp loo xamante ne war na si wàllu social war si wàllu regroupement war si wàllu bu ne Serigne Diouf mooy taxaw def ko ba mu mat ma koy sant bu baax nag di ko gërëm di ko wax ne fépp fu ma toll ginnaaw yàlla ak yonent bi ak su ñaari waajur Serigne Diouf la waa bilaay walaay taala di sant nag waa Guédiawaye Tafaya maa ngi koy sant Pape Gueye fii étage bu Madiala fii ni ñu defee open presse bi grand la boo xamante ne nii mi ngi may jàppale bàyyiwul benn yoon waaw maa ko koy bëggee bu baax di bëggee suma benn gaan boo xamante ne dafa jógee ba parcelle muy Modou xam nga maa ngi koy bëggee di bëree di bëggee Babs nag Babs kooku suma waay la mi ngi dëkk Pikine ginnaaw raay maa ngi bëggee bu baax mi ngi fii si ëppoon presse suma waay la suma lépp la lu ne la may defal xam di sant ñëpp su ma limee nag du ma juum day fekk dama dul matal quoi mais maa ngi sant ñëpp dama jii da ngay bëre ak Boy ñëpp ni bokk tey da nga jóge si ki nga xamante ne mooy jën kay rek ñàkk moom mu ñàkk contre ki xamante ne mooy ama te da ngay taxaw dëggal sa bopp xeex ak moom wan ni gars yi da nga da nga juumoon pour corriger ko te nee moom da lay corriger le 16 incha allah. waaw man li may faral di wax rek combat boo gis ma Marley sëggu ko rek arbitre bu soufflé rek wane fula ak fayda ba keroog muy am wala muy ñàkk waaye lamb ji nekkul lu may ñàkk déggoo ma dama ne la lamb ji du lu may ñàkk. du ma jugee si défaite di si demaat si kattanu suñu borom victoire laa indil géejawaay parce que waa géejawaay moom lañ may xaaree booy bool aw ma lu may xaar si moom lu ma daan mu dem États-Unis préparé yow nga ñëw fii toog fii préparé loolu la def si yow ku gën a nekk si forme dem na États-Unis ñëw man maa ngi géejawaay fii di dugg si diini tuwaan pëli di ñëw di entraîné di rey boo ko xoolee xool ma da nga naan man maa tukki woon ay tukkeeg yooyu noonu yëpp xam kenn ku nekk ak la yàlla cëralee daal waaw xaj na yàlla bëree pare yàlla demaat mais si kattanu suñu borom li ñu boolee contrat la du États-Unis lañ koy bëree du Espagne du France Sénégal lañ koy bëree Iba Mar Diop dama koy duma daan ko si kattanu yàlla. waaw loolu moom moom la concerné quoi parce que bu wàññee poids wala mu yokk poids moom la concerné ñun moom li ñu liggéey rek moo ñu doy wax dëgg yàlla li ñu liggéey moo ñu doy Mm-hmm. ok ñu gis tey mobilisation bi macha allah doy na waar guy gi mi ngi fii mbir gi yëpp génn nañ tey ñooñu déggoo la wax ñooñu dama leen du ma leen sant du ma leen sant ñooñu sumay waay lan guy gi suma grand la la yaa ngi dégg ñeneen ak rax la xam nga gars yi fi amuñu seen fay maanaam loolu mooy àdduna quoi ñun loolu lañ gëm géej waay bu kenn xewlee ñëpp def teew ñu xam ne xam ñun ñëpp benn daal benn bopp la loolu daal laa si gëm. yaa ngi day bëri ci kaw di bëri suuf. waaw comme ni nga waxee rek day bëri ci kaw di bëri suuf maa ngi bàyyi xel bu baax nag waa géejawaay parce que bàyyi xel waa géejawaay moo tax ma rey sama bopp dama xam ne ñaanu ma ko yàlla mais bu ma laalee suuf damay gis boo yoo xamante ne nii nu ñuy def daf may metti moo tax dara waruma lu dul liggéey moo tax ma liggéey nag pour dëggal sama bopp moom day bëri si kaw day bëri si suuf loolu buñ ci àggee après incha allahu ne li ma leen wax nii du deñ maa ko dàq bëri si kaw maa ko dàq bëri si suuf billaahi bu leen neexee nag ngeen xool teg suñuy spécial kan moo bay qualité man fi ma jaar si ay combat yu moom bu fa jaaroon duñ ko dégg mais bi mooy cinquième fois euh, booy bool muy waaw loolu mën naa nekk ñooñu ñoom ñoo gën a oos waaye man mi nga xamante ne nii man oosuma man maa koy jàpp daan ko incha allah Marley man laaj xam naa la bu baax hmm. dama gis Marley ba doon bëreeg Tafatine numéro 2 la Tafatine junior Marley ba doon bëreeg Boy ak Marley bi ñëwaat di bëreeg Diène Diouf Kayre ak doomu Jalaaw xàmmee ñu ko ndax mën nañoo xaaraat beneen Marley bu bokkut ak bii bëreeg Diène Diouf Kayre waaw Marley boobu noonu ba mooy nekk nii rek ndax bis boo gis day lebal bis mbaa fay bis amaana yenn bis yi damaa ñëw wane sama bopp jàpp daan yenn bis yi ma ñëw xamali ma la wax ni suñu borom ñëw ak mëninam mais nag waaj si bépp côté ñi ngi xaar marle boo xamante ne nii bu arbitre bi ne prip mu teg lépp lu nekk si kanamam jàpp kii booy bawol daan ko ñu bisi booy bawol mu ne dangaa daw dem bawol dëkkoo bawol nee na moom mooy bawol bawol bi pire waaw ba tey man doomu laañaar laa man li may wax rek man laañaar laa dëkk doomu laañaar laa yaa ngi dégg keroog Jurbel dañu faa woo signature man damaa ñëw te moom ñëwul te nee na bawol la dëkk kon dafa waroon def teew mais damaa gis mardi remise drapeau ba Bamba uh-huh. Fall mi maire bi mu ne ñun ñaar ku ci dara mois de septembre di lay tëggaat mooy damaa xam ne mois de septembre kon man maay bëriwaat ndax dëggoo booy bawol ma la wax xanaa dama ne la lii lu ma moom la dama koy dem jëli Bamba Fall loolu mu wax noonu lan la def ci moom xoola dañ ciy sant bu baax parce que ñun bëri lañ am dañuy bëgg heure bu ñu paree ñu tëggalaat ñu combat loolu kon bu ko waxee suñu yaram day xeseen moo tax dañuy kontaan. dernière question moom nee na boo je boo yéexee tuuti stade Iba Mar sa suba teel duñ. alay nu waaye la wax. <laughs> waaw waaw loolu. loolu. jàpp xam nga daan jël yomb comme combat bi tamit ñu bëri dañoo taxaw ne Marley du si génn yaa ngi dégg bu baax. foofu noonu nag laay gën a wone sama bopp lu tax may gën a wone sama bopp mooy combat yi ma doon bëre moo gën a diis combat bi nii. mobilisation bi ñëpp pare na. loolu munu ko li ma la wax ne. dama ne la moom dama ne ko dañ teg suñu reliquat ku ëpp waaw gani da da ngay woote. waaw li ma mujjee wax mooy géejawaay yëpp nañ teew xam nga li ma la wax nii le 16 incha allahu rabi ñu jàpp daan. bëggal géejawaay bëggal ñi nga xamante ne nii ñoom ñooñu waaw ñoom ñooñu yaakaar yëpp si bis ñu bëggal leen si kàttanu yàlla kontaan si yéen bëgg naa si yéen presse bi xam nga waaw di bëggee nag nga xamante ne nii mooy sponsor bi kii mooy dem jël quoi ay dégg bu baax waaw waaw sama la dem jël kon li mu indi ko sax xamu ko kon lamb ji dañoo war a dem rek jël ñibbi si si yàlla incha allahu rabbi